ñun commerçant yi fii cees ñi fi nekk bu dëgg dee dëgg rek préfet bii fi nekk daf ñoo nawloowul préfet bii fi nekk nawloowul commerçant yi nekk Thiès parce que problème bi mooy préfet bi ñu toogee wax nañ ko xamal ko ni ko mënuñoo tëjandoo marché yëpp biir Thiès benn di nga sonal population yi di nga sonal commerçant yi te amoo effectif mu ni day tëjandoo marché yëpp tëj na marché yëpp ba ko dalee def ba tey marché Moussante benn yoon la fi oto yi ñëw jël ko depuis ñu Macky Sall président Macky Sall waxee ni nañ tej marché yi benn fan ci semaine bi dañu ni diko arrêté bi lolé ci nek mais Marseille marché ni ta balé lu loko dafa wara dafa am lo ne ñun commerçant yi duñ ko bu parce que ñak maire gi moy bo démé ci zone nord wala nga ouest am nañ ay éléments yoo xamante ne nii ñoom lañ fay jël leen fay yóbbu ñuy bale marché ya mais ñun amuñu benn élément boo xamante ni mairie dina ko indi fii pour mu bale marché bi lu dul li nga xamante daam ci ne moo fi nekk président Hall et marché mooy ñëw taxaw ànd ak ñun te amul équipe bu ko jàppale kon loolu man waxi maire moom duma ko wax li may wax mooy préfet mi nga xam ni moo tëjloo commerçant yi di leen tëjloo dimanche ba pare te lig sa balewul marché yi ñu ñëw dimanche ñu ñëw fii balewuñ suñu marché ñu tijji ñu jàpp ñu ñun ñëpp commerçant yëpp yóbbu bu boobaa nag Macky Sall na xamni ñum limu waxon def nañ ko parce que quatre dimanche a ngi nii ñoo ngi tëj kenn baleeluñu suñ marché bi tay dégg na marché central lañ xey parce que dimanche ba le passé marché central balé wuñ ko ñu wax ñu dem xey ñom ñëpp dem fa amuñu effectif bi préfet lañ ko waxon nako def na def marché bu nekk mu xol ben bis mu tëj ko benen marché yi ñun ñoko gëna maîtriser marché yi xam nañ li koy wax mais bu bëggee tëjandoo marché yi day sonal population bi sonal commerçant yi amul effectif bi dimanche bi passé dañoo balé suñu maaleel mbalit génné ko bac bi fi la nekk 2 jours deux jours kenn jëlu ko ñun ñoo mu jël suñu caisse ñun marché bi fay ay nit ñu adjaat mbalit mi pour mëna a jël si bag-bag mëna ko jël ci pour mu yóbbu ko loolu ba kañ lolu ba kañ set bi ci mu mujjee def ñaata lañ ci dépenser plus de 350000 la délégué génné jox ñu ko ñu jël ko def ko ci xati ci set bi pour marché mëna mën a set loolu ba kañ lolu lañu ni dañ ci sonu dimanche prochain buñ ko balewul dañuy tëjji buñ ko balewul marché bu Moussante moom dañuy tijji parce que mënu ñoo xey di bale yenen marché di bay marché bu Moussante parce que respecté wuñu bo demee birom do ko gis deng nga nit nag bu fekkee nañ laa andi cib dëkk te nga ni nag yow da ngay demee sañ-sañ bi la buur joxe te doo demee waxtaan ak ñi nga nekkal sag diggante ñoom du mën a nekk. dem naa biroom mu ni may moom ci boppam mu wax ak man dem ba ci mu ni mënumaa recevoir naa wax ak moom ci téléphone ma wax ak moom téléphone jox cer Thierno njaay jox ko Badou Mbaye boo demee biroom doo ko gis man maa wax ni. dimanche bii ñëw bu fekkee duñu bale marché bi marché bi danañ dañu ubbi matukaay yi ba mu am na ko jël ba ñu nu ci dara nag dañuy liggéey te it dañuy fay suñuy taxe bu dee bu dee bale bale bii moom li ko ndi président bi santaane la waaye ma naka jekk ca bu jëkk ca jamono yàgg maire yi daan bali marché yi waaye gisatuma benn maire bu bale marché baleetuñu dara nun nooy bale nooy fay mbalit nooy ji fay mbaam yi noo ko yóbbu loolu moom na leer. ndigal li noo ñëpp ko dégg nungu nanu ko ànd nañu ci waaye nag moom mi yilif mi nga xam ne moo yilif te kàddoom mooy dox moo jël arrêté jox nu ko te du nu baleel waxul maire yi ñu bari te suñu demee duñu war recevoir buñ ko wooy duñu wuyu lii moom moo am mhm. léegi nag bu dimanche yi ñëw incha allahu taala bu bu fekkee ni balewul danañ ubbi sunu dinañ ubbi jaay. ñàkk bale bi daal mooy problème ñàkk bale bi mooy problème wax bi bépp mooy tëj loonu te balewunu xoolal xool rii bi yëpp xoolal marché bi ñëpp a ngi tëj.